salaamaaleykum monsieur le ministre monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen i collaborateurs yëpp di nuyu suñu collègue député yi donc concernant toujours l'article 29 euh, man je recommande vraiment toujours qu'on s'aligne sur les recommandations communautaires parce que comme l'a dit ñëpp la ñu war a bokk surtout man ñi may gën a xalaat mooy les indépendant parce que bu ñu waxee ne ñi nga xam ne dañu am parti politique mun nañ leen permettre ñu jaar ci élus yi te alors que indépendant yi dañ leen wax ni ñu dem ci parrainage euh, euh, citoyen bi dina xaw a métti ci ñoom alors que bu nekkee dans une démocratie majeure comme aime le dire le président la république dañu war a may chance ñëpp ñu bokk c'est important monsieur le ministre monsieur le ministre yow yaa ñu tàmmal ñuy dem rëbës ñu dem ci prison yi waaye lañ fay fekk wax dëgg yàlla jéggi na doyo man je pense que ñu ñëpp tey ji dañu way am le sens de l'humanisme parce que corriger ne veut pas dire maltraiter mais prison yi ma gis ci réew mi maltraitance moo fa am loolu bugg nañu ngeen taxaw ci temm yàlla nit la gën a fonk de nañ ci góorgóorlu les libérations naa si ñëw Nous avons fait de très grands efforts ici, au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que ñu wax ko keroog balaa ñu tàmbale gé bàyyi nañ suñu quatre députés ñu liggéey ci jàmm tey bàyyi nañ Birame Souleye c'est important man dama wax dama wax ne dañu war a am vers dans le sens vraiment que ñu apaiser parce que ñëpp apaisement laay dégg ñuy wax nañu libérer les détenus politiques ñu dellu seen kër yi loolu dafay indi jàmm ci réew mi bu ñu buggee dem ci ay élections yoo xam ne élections yu apaisées bu ñu buggee suba ñi ñuy xool ci sous-région bi xam ne ne Sénégal démocratie bi fi woote mu ngi fi nañu yegg ci loolu tey jii fii nii au niveau de la l'Assemblée nationale dafa am loo xam ne dafa am te dëgg la mooy fii bipolarité moo fi am ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla président Macky Sall moo fi indi yenn député yi waaye itam ginnaaw yàlla tam président Sonko moo fi indi yenn député yi à part les non inscrits attention à part les non inscrits nañ ko waxante yàlla rek yàlla dëgg la bëgg man dëgg rek laa leen di wax yàlla dëgg la bëgg léegi ñaar ñooñu ñaar ñooñu ñaar ñooñu ñaar ñooñu dañoo war a